te it leer na jëlee nañ fa ne ñoom dañuy enregistré enregistrement yi ñu ma doon tegal fële may dégg ñu ngi ko commencé depuis 92 booba gune yi ñoo fa nekk waaw 92. mbootaay gi njëkk a woote ca Kaolack boobu ñii ay gune yu tuuti lañ ñu ngi ko enregistré di ko teg may dégg jamono bu ne. foofu nag lañ ko commencé topp daara ji topp daara ji ba ci guddi gi ñu ma jël si. bu fekkonte ne diir boobu bakkan lañ doon waxee doodu nekkuñu woon di waxal diina faw ñu man ci faraatu dara <laughs> kon nañ gën a bàyyi waat xel bu baax wax yi gën ko contrôler bu dul dara suñu diggante suñu borom moo tax man damay wax ne lislaam mooy kaaraange fi mu la jaarloo ci yar sa bopp bàyyi xel sa diggante ak doomu aadama yi àq yi dox sa diggante ak ñoom boo fa jaaree kenn mënul dara boo fa jaaree kenn mënul ci yow dara du yàgg mukk ba noonu mën la fexeel ci sa kàddu yaa fi waxoon lii loolu mooy benn bi ñaareel bi ci ndaw ñi ñu bàyyi xel naxe yi nekk ci àdduna bi dafa am benn vidéo boo xam ne xaw ma ku ci amagul woon mais bu ngeen génnee na ngeen ko gëstu ci net bi ñu ngi ko tuddee le vrai visage de l'Algérie am na it beneen bu ñu tuddee l'Algérie ñaar yooyu bu ngeen génnee na ngeen ko na ko na ngeen ko xoolee ci Google bi ci ngeen di xamee lii ñuy tuddee tey terrorisme lan la ay gune yu nuy nax naxe naxe xam nga ku ñu rey sa baay rey sa yaay il faut am des sa xol bi kookee nag lañuy jël yóbbu barab wan ko ne ko gis nañ sa naqar gis nañ liñ la def gis nga ñii liñ la def war nga mën a am foo jaar pour pour vengeance pour fayu moom fayu rek a nekkoon ci xolam moom lañuy ñuy wax takk takkuloo bomb yaakaar naa kii moom xam na xam gis na vidéo boobu bu baax waaw xale yu bari ci daara ji daan daan naa ko jàngal waaw yàgg na depuis 2004 de mu nga jërëjëf pexe yooyu ñaari ci lañ ci lay attentat yi amee ci aéroport yeeg marché yeek barab yu bëri ay gune yu yu nuy nax rek waaye ñi génnee vidéo boobu ñoom itam yàlla yàlla fay leen yiw kon ngeen bàyyi xel ci yooyu bëri na ku ñëw naan la lislaam lislaam lislaam lislaam ma ngay seet fu la mën a jaar ba dugal la ci ci ab jàkkaam nga def action boo xam ne ci turu lislaam nga koy def fekk na du lislaam loolu nañ ci bàyyi xel bu baax Euh, ñetteel bi ci recommandation yi suñu diggante ñu nu neen islam faaw mu am ay ay ay gis-gis ndax dafa am foo xam ne ñun ñëpp dëppoo nañ fa waaye am na feneen foo xam ne dañ naa nag boroom xam-xam yeeg nañ ko gisee kii gisee nii ki gisee nii kii gisee nii wuute yooyu nañ ci respecté wante kenn ku nekk respecté moromam te xam ne ba ngay gëstu yow yàlla la taxoon di gëstu kon bu wuute amee ci benn mbir nga am sa yéene ju sell di ci def gëstu ba gis ne ah man di jàpp naa ne nii la te yàlla rek a tax nga jàppee noonu la sa borom itam gëstu ba gis ne jàpp naa ne nii la respecté ko boppam moom itam mu respecté la sa bos kenn ku nekk jaamu yàlla ci gis-gis booba te di yëg ne incha allah tiyaabu dong la ci am ndax masala ijtihaadiya benn nga ànd ak sowaab am ñaari tiyaabo way laa nga juum suñ borom jéggal la njuumte la bind la benn tiyaabo kon yéen ñaar kenn pertu ci foofu amut xulo <laughs> warta am xulo nañuy bàyyi wante xel bu baax foofu ñeenteel bi boo koy tëjee na mooy réew mu nekk ak fa ko noon yi jaar pour taal ko euh, musiba bi nekk tey diggante moom la Arabie Saoudi ak Yaman lan la problème mu sunna li nekk Irak lan la problème mu Chia sunna naka jekk dama ko doon wax xale yi ne leen bàyyi leen xel ci sensibilité sensibilité yooyu la ko crée ñun xam nañ ko bu baax. Sénégal gii nag fi ñu koy jaaree fan la sunna tariqa bu leen nangu bukk ñu ré ñu réussir ko. nangeen bàyyi xel lii ma leen di bëgg wax te bëgg koo tëjee ci mu aju ci tombu ñeenteel bii yéeg leen ne am na ay mbooloo. yoo xam dañ leen recruter di leen fay salaire yu baax ñuy liggéey ci internet bii ngeen di liggéey kii day guddalab sikiñam bu baax gàttal tubayam ne salafiste la di wax lu ñaaw mbokkum tiijaanam bi wala mbokkum muritam bi wala mbokkum xaajaram bi yàlla xam na ne boo toppoon ay mbiram guddeeg bëccëg da nga dem ba fekk ko fu mu toog di naan sàngara mbubbam mu gàtt moom ak si sikkiñam boobu jotewul ak diinam lenn da nga gis keneen koo xam ne nee na bëgg na sëñ Touba ba di ko giñee bëgg na Seex Tijaan ba di ko giñee moom itam wëlbatiku di tontu ngóor sale di ko saaga bay saaga ay kilifaam ndax loolu diina la kon xam ngeen ne ñaar ñii kenn kenn doonut ci la muy wuyoo kenn doonu ci la mu yooyu yooyu na ngeen ci bàyyi xel te ñun ñi dong lañ soxla jullit ñi dong lañ soxla ker buñ réussir loolu nag ba yéen ngeen jóg di tojantey bopp ñoom dana ñëw installé li fi nekkoon ci njëriñ ci suuf si ñu gën koo mën a euh, wii di yóbbu seeni réew taal bi yëpp di la ab murit bu fekkee dafay roy sa Cheikh Ahmad Bamba rahimahullahu tabaraka wa taala Seex Amar doon wax mooy melal ni suuf lu bon loo am sànni ko ko moom mu jël ko soppi ko njëriñ suuf noonu la da ngay jël fële benn potu sàmbur ñëw sotti ko ko moom mu jël ko transformé ko li ñuy wax tos boo fa jiyee mu nangu lool mu ne melal noonu nii lu waay am ci lu bon na la ko xëpp yow nag jëlal lay sa lu baax yëpp nga delloo ko ko kooku dana xuloo dana xasante dana saagawante pourtant loolu la Cheikh Ahmad Tidiane yi la Cheikh Abdul Qadir Jeylaani yi wax kon kay askanoo kenn ci ñooña wala muy askano ci ahlu sunnati wal jamaa nga gis ko muy saaga bul ko wóolooti mukk bàyyi leen xel loolu bul ko wóolooti mukk nga gis ko muy saaga mbokkum jullitam di xas mbokkum jullitam ba àgg ci mën koo jël di ko tas ci internet